dañoo ñëw tey ci marche opposition bi pour xamal Macky Sall ne ko parti opposition bi ci biir Sénégal mancé nañu ànd pour jëlee ko ci bop réew mi ci 24 février 2019. parti réew mi and ak yenen natango partem ci biir opposition bi pour ñëw xex ñu dëgeural démocratie xex ci luy naxasal jaay doole xex ci luy naxasal liberté individuelle ak collective ndax Macky Sall bi mu nekkee ci bop Sénégal ba légui limu mu askanu Sénégal moy jaay doole. Moy kumba am nday ak kumba amul nday moy jël Khalifa Sall tuumaal ko tej ko ci kasso bi jël Karim Wade tuumaal ko yóbbu ko Qatar jël parrainage bi diko ko ay adversaires sérieux ku melni le président Idrissa Seck lolou lañ ñëw tay ji pour ne ko adada stop il a atteint la limite donc Macky Sall warna na askanu Sénégal tay ni ñu mobiliser wo mom fekkon may mom damay jël ay bagaasam génn ci bir réew mi ñu organiser ay élections yu libre yu crédible ak yu transparente parlant de mobilisation noko ko parce que daa au début bi gis nañ ne groupe bi dañoo séparé wu ñeneen ñi nek ci kanam ñeneen ñi nek ci ginaaw loolu ko lan je pense que nous avons réussi une grande mobilisation mobilisation bi tay opposition bi def ñun ñu koy saluer te mosu fay am on a mobilisé plus d'un million de personnes yo xam ne ñoo dox doxu ñaxtu wan Macky Sall ne ko dafa wara arrêter de violer constitution bi dafa wara arrêter de violer ak ak yelef doomu adam yi dafa war a arrêté di xeex ay adversaire politique am dafa war a arrêté di def kumba am ndey ak kumba amul ndey mobilisation bi réussir na parce que li ñu génne tey jii Macky Sall mënu koo génne ku mu jëndul wala mu jox la t-shirt wala mu dig la xaalis mënu laa woo tey ñi fi ñëw ñëpp kenn joxu leen t-shirt kenn joxu leen oto kenn joxu leen xaalis ay nit la ay sénégalais yu am gëm-gëm bëgg seen réew jóge seen dëkk ñëw fekk ci woote bi dox ñaxtu bëgg Macky Sall jóge ci bopp réew mi ci bisum 24 février 2019.

bu fi ñëwee kumba am ndey ak kumba amul ndey dina fi jeex